journée BFM bi tey ci mbooloom diwaan na gox yi Sénégal téeméer ak juróom fukk ak juróom-benni junniy candidat war a sëgg ci épreuve yi suba tey jile ah, jamono yi baccalauréat bi wéy di def coow ca Podor way juru ndongo yenn ca lycée El Hadji Baba Ndiong ñoo fas yéene yóbbu président jury ci yoon danoo gis ne njuumte yu mu def ci noti seeni gune tax ñu jàll nu wàllu wér-gu-yaram sut saas saas grève ñetti fan yeneen yu nuy sumb tey ji ëllëg gannaaw ëllëg liggéeykat yi ci wàllu kër di wéy di sàkku ci nguur gi mu wàccoog la mu gi woon ak ñoom 2009 ëllëg am na ndaje mu war dox seen digg ak jëwriñ ji nu bootu Modou jaañ Fada ngir waajal ndaje meneen di conseil bu Abdoulaye Wade woote eh, ngir wér-gu-yaram ci Sénégal ak tolluwaay bi gëstu tey bi ñu ngi ko jagleel industrie de pêche yi di këru liggéeykaay yi wékku ci napp meeg seen i jafe-jafe yu ca bari tëj na ndax i eh, jafe-jafe eh, ISENAB ren ndekkee ñàkk yóbbu gi Tchad président Abdoulaye Wade ca ubbiku ci naatangoom bu Tchad Idriss Déby waaye mu fare ne ko sawarul woon ci ñu delloo yónnee ko ISENAB jeune Afrique ni waxee Euh, bitim réew Guinée Conakry ay sox yu nu fa dégg bi euh, ca fa wër dalub njiitu réew mi Alpha Condé ba fi xamunu lu waral euh, sox yu ni mel ci technique bi Abdoulaye Diop.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 bokk na ci daaw eh, ñi nga xamante ni ñoo jàll macha allah taux ba dafa yëg ci 2010 gi eh, ci weneen wàll itam moom eh, directeur examen yu concours xam le ni def nañu lépp ngir examen yu jaar ci yoon di kàddu yi Baba Yacine Ndiaye lu jëm ci wàllu examen ak li nga xamante ni nag mooy BFM beeg coow la woon démb ñeel Dakar Plateau ñaari téeméeri candidat yi jaaxle woon ndax ñàkk jotum convocation euh, Iden bu Dakar Plateau xam le ni lépp jaaraat na ci yoon li waraloon yeexte gi rek mooy dog-dog yi ci wàllu courant bi Ziguinchor moom ñii di euh, BFM bi ni nga ko fay waajal tey jile ndongo yi sëgg ca seeni waajur nag noonu waaye kilifa njàng meeg yu diwaan ga fàttali leen taw yu bari yi wadd ca diwaan nga fan yi kon faw ñu sóoraale lu ñu mel doon te kilifa njàng mi foofee digg nañ fa examen bu jaar ci yoon ñu dem Ziguinchor fekk yi Abdoulaye Sambou treize mille cent douze nekk candidat yi nga xamante ne ñoom ñoo war a jongante ci examen bi bokk ci ñoom cinq mille neuf cent quarante six nekk ay jigéen soit quarante cinq pour cent ci effectif bi ñoom ñoo ut brevet de fin d'études moyenne ci diwaanu Casamance jamono ji nag daanaka yépp yemb na ngir examen yi ñu amal ko ci yoon fii ci diwaan bi kilifa administrative yi ñoom nag ñu ngi dalal li ñi ndax nee nañu surveillant daan daanaka ñoom ñëpp jot nañu seen convocation mille trois cent vingt quatre correcteurs ñoom la ñu mobiliser ci épreuve yi ak matériel bi daanaka yóbbu nañu ko ci 87 jours yi nga xamante ne ñoo fi nekk depuis dimanche ji inspecteur d'académie di wax ne nag ak seen lëkkaloo ak kilifa administrative yi daanaka centre bi yëpp daañu fa yóbbu karange wante inspecteur bi nag di ñaan candidat yi ak parents d'élèves yi ñu bàyyi seen xel ci taw bi ana seen ngi wax parents yi parents d'élèves yi ak candidats yi tamit euh, ne leen nañu sóoraale taw bi ndax yaakaar naa li ñu dundoon daaw taw bi gàllankoor bi mu indi woon daaw war na tax ren ñu gën a fàggandek te ci mbir moomu tamit sensibiliser nañ chef de centre yi président de jury parents d'élèves ak ñëpp maa ngi leen di ñaaxaat pour que parents d'élèves yi ak candidats yi tamit ñu jël seen matuwaay pour que taw bi bañ a leen a indil benn gàllan ndax mbirum examen la heure bi su jotee dañuy démarrer bu fekkee am na ay retard yoo xamante ni taw bi moo ko waral tamit xam nga yooyu ñun duñ ko mën a accepter ba tax na daal maa ngi gën a ñaax parents yi ak yi ñu sóoraale moo jël raw gàddu gi ndax 76 pour cent la amoon ci taux d'admis Abdoulaye Samb RFM. jërëjëf Abdoulaye ci yeneen ndaje xibaar 9h incha allah bulletin bi ci français daanu dem ci lenn ci centre yëral leen gune yeeg examen beeg fan ca toll euh, ci misaal incha allah Ndakaaru Salif Sow du ñàkk mu ko ceeg Babacar Fall. baccalauréat bi Podor moom mooy wéy def coow foofee ci diwaan ga am na fa way juri ndongo yu fas yéene yóbbu ci yoon ab président jury bu seen i doom danoo def njuumte ci seen i not tax jàlluñu ci bac bi ñu dem Podor fekk Seydi Gongue. résultat baccalauréat ci diwaanu podoor rawatina ci lycée El Hadj Baba Ndiong bi nga xam ne jury 323 fa la nekkoon génn na. ci li nga xam ne mooy candidat yu doon jongante ci ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett yi nga xam ne ñoo fi nekkoon téeméer ak fukk ak juróom-ñett ñoo ci jàll buñ ko xayma dina nekk ci téeméer boo jël fanweer ak juróom rek ñoo ci jàll ci premier tour bi nag nemmeeku woon nañ fi ay jafe-jafe yu tar ndax kat li nga xam ne mooy résultat yi yéexoon na génn ba coow li ne fi cour waaye tamit li nga xam ni moom mooy yenn candidat yi dañ leen ni woon amuñu waaye bi ñu ñibbee ba seen kër ci lañ leen woowaat ni war nañu mën def deuxième tour ci li nga xam ne mooy deuxième tour bi nag génne ba léegi maanaam tey ci altine bi bi ñu convoqué ñi nga xam ne ñooy candidat yi nga xam ne jàlluñu dañu ñëw ci seen ay relevé ñu nemmeeku ci ne daal am na ay notes yoo xam ne nekku ci loolu faral ñu ab coow lu bare am fii ba nit ñi di ko waxtaanee fu ne loolu nag li nga xam ne mooy parents d'élèves yi yëkkati nañu ay kàddu ndax kat nee nañu ñi nga xam ne ñooy administration lycée bi dafa bëgg a def masla waaye ñoom dañ ci taxaw tembe ngir seen doom yi nga xam ne dañ leen éliminer te fekk ñu waroon jàll ñoom ñu delloo leen li nga xam ne moom mooy seen baccalauréat ba tax na daal nee nañu dinañu porter plainte ndax kat ki nga xam ne mooy président du jury bi bi mu defee lu mel noonu ba pare dafa génn ci dëkk bi kenn yëgu ko jéem nañu jokkoo ki nga xam ne moom mooy président jury 323 bi di monsieur Kébé waaye loolu jotul te en tout doon jokkoo ak yéen fii ci diwaanu Podor di Gange pour la rajo Futur Média. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. wàllu wérgu yaram sud sas sa sumb ñetti fanu grève yeneen li ko dalee tey jile la ñuy bëgg rek mooy la ñu digge woon ak nguur gi ne ay accord 2009 ñu doxale ko ëllëg am na ndaje mu war a dox seen digg ak ministre du Diagne Fada ngir waajal ndaje meneen di ndaje mu njiitu réew mi woolu ngir waxtaanee wérgu yaram Sénégal leeral li Saliou Faye daaf moo toftalu ci président convergence sud sas sas. ñaar fukki fan ak ñaar fukki fan ak benn dinañ ci def grève boo xam ne dinañu assurer service minimum bi ak urgence yi loolu nag aussi bi ñu xaymaa ba pare lañu ñu ko décidé waaye nag ci biir loolu jot nañu benn bataaxal bu ministre de la santé boo xam ne dafa ñu woo àllarba ñaar fukki fan ci ñeenti waxtu mais ñuy xaar nag fa ñu war a defee ndaje bi parce que dañu war a bokk daje préparer conseil présidentiel sur la santé muy woote bu mag boobu nga xam ne président moo ko war a woote ci wàllu wér-gu-yaram kër docteur manquement garab yi nawet baa ngi nii ñi ngi taxaw ci nawet te lu mat ñaari téeméeri xeetu garab ak produit essentiel manqué na fil manqué na compresse manqué na antipaludin manqué na dama ne tey jii boo duggee ci këru docteur yi produit anesthésique bi ñuy nelawloo manqué na ma bëggoon nag loolu nañ ko def procédure d'urgence pour Sénégal am garab ndax ñun fii rek lañ am Sénégal rek lañ am population yi rek lañ am. Saliou Faye daaf bu convergence sud saas saas yi sumb ñetti fanu grève yeneen tey ëllëg gannaaw ëllëg diwaanu Mbour maire ba moo fa taxawu wi fukk euh, ci ay millions ngir ak ndimbal ñeel ña ko soxla ña loxo yi jotul ginnaaw gi mbokki handicapé yi ña mbënd ma lor ak yeneen leeral yi Mamadou Diop. ëpp nañu ñaar téeméeri nit ñoo xam ne ci ay jafe-jafe la ñuy wala ñoo xam ne seen loxo jotul seen gannaaw wala ñi nga xam ne itamit ci mbënd yi paase ni dañ cee sonnoon lool lu toll ci fukki million kat moom lañ génnee ci seen jiba jagleel leen ko Yacine Ndaw mooy adjointe au maire yor wàllu social. ñu am 10 millions yoo xam ne dañu ko voté ñu jël tey suñu premier tranche di ko joxe. di ko jox nag néew doole yi ak ñi nga xam ne dañoo feebar amuñu ñu leen faj ñu di leen euh, identifier ñooñu seet leen di leen jàppale pour faj leen. Euh, jot nañoo recensé lu ma téeméeri nit. ak juróom fukk yoo xam ne tey dañ leen di jox ñi ci des am na tranche buy ñëw dañu danañu leen jox ñoom ñi ci des incha allah. demande yi moom bari na euh, defe naa ne presque booy seet am na ñetti téeméeri cas wala ñeenti téeméeri cas yoo xam ne yii ñu ngi fi bari na daal. kii di Hélène Mbengue jiite commission sociale bu mairie bu mbuur nee na kat ñi sàkku ndimbal bari nañu lool loolu moo waral tànn bi dafa métti woon lool. surtout nag ñu ngi seet ci certificat indigence ci la ñuy sukkandiku am na nag tam ñu ngi seet ci ñi nga xam ne tam néew nañu doole te feebar ñu ci bëri dañ leen a dem fekki ci seen i kër seet leen xool leen xool seen dëkkin xoolit seen jafe-jafe ñooñu ñu ngi leen di dimbale waa indone tam ñu ngi leen di dimbale sinistré ñetti million ak genn wàll mooy li ñu njëkk a génne ci xaalis bi ñu jox leen ko kat ci altine ji leneen li nga xam ne des na ci xaalis bi kii di Hélène Mbeng jiite commission sociale bi nee na ci fan yi di ñëw nii dinañ ko jox ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo ko yelloo ki doon jokkoo ak fii ci mbuur Mbour du Diop ngir RFM jërëjëf Mamadou bët gànnaaru Sénégal la nuy wutali ci Matam borom wata yi jël yoonu Ourossogui Bakel ñoom bu timisee rek ñu gaare li ko waral mooy cong yi fan yi ci ginnaaw tax ñi mettunu buy timis ñuy daal di gaare donte am nay sandarme ci yoon yo leerali Ali Bandel Niang ñett fan gannaaw congo guy Samba Boy ameloon ci route nationale numéro 2 ba léegi kat kenn tegagu leen loxo moo ne sax nag ab opération bu lëkkalee élément gendarmerie yi bokk ci compagnie bu Matam ak Bakel ñu ngay wéyal koon liggéey bu am solo ci diwaan bi jamono yi waaye nag ci biir dëkk di nekk ci biir Damga ay rumeur yu bare bare kon moom mooy law ci xelu nit ñi ñu ni ragal kon jaar yenn doomi aadama yi ñu ne ñaaw njort ñoom ñooñu ñooy weral jëf jëf yu ñaaw yooyu lay tey jii moom jur nab jiixi jaaxa ci bopp transporteurs yi rawatina ñoom ñi nga xam ne yëkkati nañu seen kàddu di ñaan nguur gi mu daal di yokk kaaraange gi Mamadou Tall di président regroupement transporteur yu doonu Matam di ci àddu jëmale tey ñaan encore gouvernement bi ñu gën a yokkaat sécurité bi kay na am na sécurité waaye yaakaar naa ne région bi comme dafa rëy dañuy ñaan ñu gën a yokkaat kaaraange yi ba yëf yi tàngee dëgg dëgg ay 94 daanañu def oto boo xam ne bi ñëw nga fii rek da ngay ànd ak sécurité ba côté Bakel mais léegi lii tax affaire a naqari sama gis-gis nit seen boppa dëkk bu nekk xam nañ ñiy def caay foofu nit ñi tam dañu war a dimbalee sécurité bi comme ça ku gis saay-saay xam nga ne saay-saay mi ngi fii ci dëkk bi ko gendarmerie mais ko kon laal na la nit jógee Dakar am ku téléphone ne alors nangam mu ngi ñëw yaa xam ne ñu kii yógoo ci dara yaa nga dawal sot ba nga ñëw fekk ñu bari tali kenn xamul lu muy niru boo tax ñu fekk la fa yor seen fetal jël sa xaalis jël xaalisu clients yi donc sécurité gi yi di addu jëmale ci laaj bi nga xam ni transporteurs yi ñu ngi koy laaj ñi ab mot d'ordre moom joxe nañ ko ndaxte jamono yi bu jant bi xasee soo ñu ngay commencé wàññi seen yëngu-yëngu rawatina nag euh, ñoo doon assuré trajet bu lëkkale Ourossogui ak Bakel mu nekkoon seen naataango Ali Bandel ñaa fi ci door Matam pour RFM jërëjëf Ali Bandel RFM juróom-ñetti waxtu tegal fukki minute ak benn tàggoog nag yéen ñu daal di jublu ci gëstu bi nu jagleel tey ji industrie de pêche di kërug liggéeyukaay yi wékku ci napp mi Sénégal ak seen i jafe-jafe société Africa Mer la ci foofee tolluwaay la bokk na ci wàllu yorin ak euh, jafe-jafe El Hadj Ndiogou ay at a nii usines yëngu ci wàllu napp gi nekk ci jafe-jafe yu tar entreprise yu mag yu si mel ni Africamer Senemer pêcherie frigorifique ak Sénéchal Crustagel daal di tëcc yeneen di dund ba léegi wante ñi ngi sukuraat ci yooyu entreprise mën nañ cee ràññee SNCDS di société nationale des conserveries du Sénégal daanaka fi mu toll nii benn usine rek euh, mooy dox muy Sénégal pêche nga xamante ne ay doomu Chine ñoo ko moom li di jafe-jafe tar yooyu nag ci usine napp yi mooy yorinu bon waaye ay jafe wàllu jumtuwaay ak tamit wàllu nekkin sunum réew di jànkonteeg manqué ak jën ak yiy jóge ci géej gi loolu nag li ko waral mooy anam yi ni nappe geneen ko jafe-jafe moo di ne usines yi ci ni ñu bindoo dañuy rëy lool ba nga xam ne ngir feesal leen ak tamit am liñ soxla ci wàllu produit dafay nekk loo xam ne lu jafe la tax ba ñu bëri si ñoom daal di nermeelu li di napp nag nekk na fànn bu am solo ci koom-koomu réew mi ndaxte at mu nekk dina dugal ci Sénégal lépp téeméer ak juróom fukki milliards ci sunu xaalis lépp juróom-benn téeméeri junni doomu aadama ci wàllu napp gi ci la ñuy yëngu. Ziguinchor bu Malaye Ndiogu entreprise de pêche yu fa bari daal dina tëj lii di Séchal Crustagel ak ñetti junni liggéeykatam ba tey jii di commentaire ya foofee tëj na liggéeykat ya daal di yóbbu mbiri ci yoon yoon jox leen dëgg 2007 ak léegi waaye kilifa ga lank wàccoog dogal bi Abdoulaye Samb. FM. rajo bi leen di xibaar saa su ne. ba tey ci gëstu bi ñeel wàllu entreprise de pêche yi jàpp leen ni ay jafe-jafeem nag euh, la ca gën mooy wut ca saafara ca bañ koy liquider mirage mooy gis-gisu Ibrahima Sarr Ibrahima Sarr moo jiite euh, CDSL euh, gis na ni daal wàllu ko mirage yi sax saa yu am ñii di liggéeykat yi duñu ci jot seen ak ak yelleef ñu déglu Ibrahima Sarr. moo seetloo léegi industrie de la pêche mu ngi mel ni lu mel ni Sénégal pêche rek moo ci dox. ñun nag euh, war nañu tase ak ministre de la pêche àlarba euh, syndicat yëpp euh, représentant délégué du personnel yu CNTS yu CDSL yu UTS. ñoom ñëpp parce que commencé nañu relancer Africamer mu ngi jël ay liggéeykat mu ngi commencé jël ay techniciens mot na téeméeri nit te entreprise boobu bu fekkente ne dox na nu mu war a doxee mun na jël ñaari junni ak juróomi téeméeri liggéeykat loolu nag la ñu ne gouvernement bi na jàppale secteur la te jàppale industrie yi pour ñu mun leen sukkale parce que ñun d'accord ñu liquider benn entreprise parce que boo liquider entreprise ci liquidation bi déjà ñi ñu koy dénk pour ñu liquider dañu ci seet rek seen intérêt ñu toog lu yàgg yàgg yàgg yàgg duñu ko liquider liggéeykat yi duñu ci jël seen droit duñ fay IPRES duñu fay sécurité sociale duñu fay impôt ba matériel bi yàqu kon bu fekkente ne mun nañ ko soqali te nit ñi taxaw fu mel ni hélas ñu taxaw ba def fa comité de gestion. un milliard de nos francs. Mody Guiro s'en explique au téléphone d'Antoine Diouf. notre organisation la. leer leer nañ leer nañ ñëpp. milliards de neuf. ne de neuf. ne Abdou neuf. ne Abdoulaye Wade. mu de la mu mu de la mu dund. mu de la mu dund ñaar. Guiro s'en explique. s'en explique fan ak ñett fan ak ñett. explique au télé télé télé d'Antoine Diouf. Antoine Diouf. assemblée nationale. assemblée nationale. notre gée. notre gée. wa gée. waaw. dund lu dund lu ni mel. Sénégal dugal na fi nangam. entreprise bi lii mooy sa feebar. boo ñëwee ñu xool feebar feebar ba mu méngóog la nga xamante ni moom nga soxla pour ñu jox la ko boobaa ñu def ko donc ci loolu ñu jëm daal mais waxtu wi ñu toll nii mënuñu wax ne cellule de redéploiement industriel nangaman fa nangam boobu ci wàllu xaalis moo ñu mar ba dañ koy jël jox ko entreprise bi du noonu. Abdoulaye Ndaw moo jiite cellule de redéploiement industriel di mbootaay gu nguur gi taxawal ngir kon euh, daal di suqali entreprise de pêche këru liggéeykaay yi wekku ci napp mi kër liggéey kaay la RFM doon waxtaane ak yéen ak seen i jafe-jafe yu ndax jafe-jafe ku yorin gënanu kër waaye bu nooyi macha allah ICS kilifa kër ga xam le ni bor ba diisoon lool ci ñoom di ñaari téeméeri milliards fay nañu ko responsable yi kër ga ba tey di industrie chimique bu Sénégal xam ne sax ni wàllu jële gi ngir xëy mi recrutement daana ko doonaat ak it taxawuñ daa baaxee askan wa dëkk fare ak ñoom foofe ca Mbooxo Hissène ak ñàkk delloo gi Tchad ndeke Abdoulaye Wade nattangoom Idriss Déby Déthié sawarul Jeune Afrique ko xamle ba mu jëlee dogal delloo ko naa ci la ni ko déet sawarul ci gan gu ni mel day bañ rekk bu ëllëgee ñoom président daw làqu yi am yenn jafe-jafe yi àndoon nañu ci wàllu tënku xibaaru Jeune Afrique googeeg Jo Maron eh, ci français geeg Antoine Diouf bitim réew ba tey ak Guinée Conakry ay sox yu nu dégg biig ca fa wër eh, dalub njiitu réew Alpha Condé sox yooyu nag ba file xamagunu gindee ko gunu ci li ko waral eh, jëm ci googee cong ca Conakry. wàllu sport ñu ànd ak Cheikh Tidiane Diagne maa ngi lay ziar sëñ ngi lay fay El Hadj Assane Gueye. dañ koy door rek wàllu bëre dóor lu ñeel kii di amaa Balde moom nag dañ ko daal di suspendre lu tolloog benn at juróom ñeenti weer yi nga xamante ni daal euh, du bëre waaye ñetti weer yi sursis la loolu nag la ko waral moo di ab jaan bi nga xamante ni indi woon na ko gannaaw combat bi nga xamante ni mu ko doon amal ajuma gi. Euh, ca stade Demba Diop ci digganteem ak euh, fëggala kii di Ama Balde itam daal dinañu teq koppar yu am solo. ci li nga xamante ne daal moo di reliquat bu mu amoon foofule ca CNG bu lutte wàllu ba tey jamono ji après am ci diggante Gaston Production ak 2S TV la ko waral nag euh, moo di ñi nga xamante daal ñoo di waa Gaston Production ñoom daal dinañu dakkal contrat bi nga xamante ni moo leen lii ndax dañoo jàpp ni ñii di waa 2STV respecté wuñu li nga xamante moo di contrat googu lay rawatina nag ci combat diggante Tyson ak Balla Gaye dañ siy déglu kii di Gaston Mbengue bi nga xamante ni moom moom moom Gaston Production ci téléphone u Ndate Diop dañu dem ci dokkoon ndax moom moo ko jëkk a parce que moom moo fayetul nit day am bonne foi El Hadji Ndiaye à chaque pour bañ a di def ay dilatoire pour dugal les jeunes promoteurs ci benn carton boo xam ni leen wax ni man maa détenir lii parce que certains promoteurs nag duñ ko xam mu leen di dugal ci ay yu kenn xamul gis nga ren ñaata yoon la fi histoire histoire naag du ko laay histoire naag Aziz ñëpp ba nga xam ni ñooñu dañuy mujj euh, nangu par force parce que daf leen a signé loolu loo xam ni ñoom comprendre noonu sax li ñu doon signé Gaston production nag moom day liggéey El Hadj Ndiaye mënu fi nekk à chaque fois di discuter ci contrat di bafouiller ay contrat di def ay dilatoire nee naay report combat Tyson Balla Gaye 2 RTS wax ko mais euh, report boobu ñëpp yëg nañu ko te man ci sama bopp man Gaston maa dem ba biir 2STV wax ak Ousmane Cissé son directeur général wax ak doomam Abdou Ndiaye bi mu jógee Belgique dafa ñëw fekk ñu commencé teg escorte Tidiane Faye Pape Mor Lo moom moo ko arrêté lu personnellement bi ma ko wooyee mu ni ma non yow amul problème su la neexee man nga ñëw fay ñu defalee la escorte man ko man du ma ñaan ñaanuma muy def ay dilatoire depuis quatre jours ñu décidé rompre contrat bi tant que fayul su fayee y a pas problème mais su ko fayul du dugg ci combat le 24 ak le 31 juillet boobu ba léegi nag ñi ngay jéem a jot kii di président directeur général bu 2S TV di El Hadj Ndiaye waaye yëf yi amtul du ñàkkit kon Euh, bu ñu déggee dana def signe de vie ngir bu ko daa defee moom tamit mu daal di indi ay leeral jëmale ko ci mbir moom li nga xamante ne moo dox diggante mag kii di Gaston Mbengue di diggante euh, Gaston production ak structure bu El Hadj Ndiaye di 2S TV wàllu football ak njaxtal ñaar fukkeel ak ñaareel bëccëgu championnat bu Ligue 1 démb nag amoon na ab jongante ci stade Demba Diop diggante Douane la ak AS Pikine waaye ñaari équipe yi dañoo match nul geneen jongante goomoon itam foofule ci stade Demba Diop diggante ñaari tal la woon ak yaakaar bu ñaarital yi moo ko daan benn balle ci dara bitu ñaarital nag ku ko dugal di Mohamed Niang Diop ba match bi amee euh, ñeen fukki simili yëfi nag danañ ko daal di wéyal ëllëg euh, diggante Turekunda bu Mbour lay doon ak étudiant yu Dakar Université Club dimanche gi nag di ñëw lañ koy daal di ndar kàpp diggante Casa Sport bu Ziguinchor ak compagnie sucrière sénégalaise Ligue 2 bu Sénégal ñoom nag ñu ngi toll seen ñaar fukkeel ak euh, ñetteelu bëccëg danañ ko wéyal Eh, tey ji nag eh, ci ngoon ci stade Demba Diop ñaari jogante bu njëkk diggante yëgoo bu Sicap ak génération foot yëgoo bu fekkante ne ni daan na kon bokk eh, dana tolloo ki poñ yi nga xam te ñoo di waa jàmbar bu salifete ci bopp raw gàddu gi ngeneen jogante diggante renaissance bu Dakar ak stade de Mbour Eh, ñi nga xamante ni ñoo di waa jàmbaar bu sali ñoom nag eh, danañu am ab match eh, retard ndax ñoom seen jogante seen diggante ak Etix bu Mboro dañ ko ajandi ba jëmi jamono noonu itam diggante Ñambur ak Étoile Lusitana ñu daal di ko jeexaleek wàllu jàng ak tàggat yaram ak institut jàmbaar bi nga xamante ni kii di Sayer moo ko yor kon boog jàppale ñoom lu tollook fukki candidat la ñu amoon ci baccalauréat bi ci fukki yi nag juróom-ñaar yi nañu am seen bac kon bokk ñu si profité daal di ndokkeel kii di président Saër Seck Alaaj Jasan mu mel ni kon football boobee bokkut ak bi yàqum njàng mu njëkkaan boobu masaan football yi ñëw Cheikh balaa ngaa duggaat ci kër gi da faxasu ndax bañ yar waaw léegi xam nga jamono day dox ba yëf yi soppi kon bokk jàng ak sport euh, mel ni ki daal ànd na lu ànd la jërëjëf Cheikh Tidiane Diagne RFM gëstu bés bi gëstu bi ñeel kàddu yi Abdoulaye Wade yowoon 14 juillet ak ñeent wi askan wi dootu ko fàtte ba mukk ñu doon xaar seen président yeewi leen wax leen lu nu mën a dégg ci seen i jafe-jafe seen dund gu metti waaye lu nu gis muy njiit buy weddi boppam wax waxeet te ku ne war naa xam ne sa démb dina la dab ak rajo yi tele yi internet lu waay di waxati na ko xam fukki attaque benn ci nguur gi ana diggéey Abdoulaye Wade ya saafara mbënd mi fukki mesures yi ñu jëloon ngir yombal njëkk yi jàng mbeg jàngale bi baax wér gu yaram gu wér ana train grand écartement ya ana bateau taxi ya ana TGV ya ana tramway ya ana centrale nucléaire ya ana projet ya ma ba en président ay dige du ko ko gëm rek lay sonal ndax sénégalais yi dina gëmati Wade ak ñi mu àndal ak seeni dige député yi maire yi nguur gi kenn desul maître Abdoulaye Wade weddi loo xam ne moo ko fi waxoon ña fa nekkoon xam ko ana luñ ca teg du dul ay tàccu ahankay ndax ku ëmb sa sànqal ëmb sa sutura Sénégal metti na sénégalais yi lott nañu ndax ndaw yi dinañ gëm au conseil de l'emploi bi leen fi njiiti réew mi diggati bis bi nga xam ni àdduna yépp di ko seetaan mu ne maa waxoon waxit lu am ba des daal mooy wadd ak nguuram seeni diggé seeni engagement ak askan wi mënuñu ci dara jërëjëf euh, soxna Binte jàlloo ñu yegg seeg yéen ci le marché wàllu koom dalal euh, soxna Mantouré Niang. dal leen ak jàmm am na ñoo xam ne ñoom nee nañ duñu wékku ci politiciens yi ngir rek defar seen ab liggéey le marché nag saytu ci jigéen yi nga xam ne ñoo bokk ci ay kuréel ya ne fële ca Saint-Louis. ña leen dimbali moo di confédération paysanne ba tax na am nañ téeméeri million ci koppar ngir rek mën a liggéey ñoom nee nañu dootuñu xaar politiciens yi ñu dimbali leen ngir ñu def seeni i commerce wala seen transformation produit yu géej yi ak fruits ak légumes wala sax jëg cuub Mohamed Nabi Silla ngir suqat bërëbu soppalukaay yu fruit ak légumes ak li nga xam ne sax aju na ci wàllub jën rawatina commerce koo xam ni dañ koy faral di def groupement yu lëkkale ay jigéen am ci wàllu koom-koom dimbalu confédération paysanne moom mi nga xamee ni yombal na leen benn crédit koo xam ni toll na ci téeméeri million ci suñuy koppar loolu ñu indi ci woyefal ci bërëbu dencukaay xaalis yi tey jigéen ñi lëkkale seen bopp wane ni bëggatuñu dund ci politique boo xam ni dafa aju ci wàllub loxo bu ñuy tàllal waaye koom-koom laal xam ni aju na seen wàllu bëgg-bëgg ngir yokkute jëm ci wàllu koom-koom Aminata Sow moo di seen jiit. Pikine am na jigéen ñu bari ñu fi nekk am na ay militante yu bari ñu fi nekk mais amul suivi ci wàllu politique fi ma jëm d'abord mooy ànd ak samay jigéen. jàppale leen naka na ñuy def bi liggéey am nañ financement cent millions boo xam ne jigéen ñi dañ cee war a liggéey politique ci waxi neen nga am say jigéen beneen responsable neexal ko cinquante mille wala cent mille francs mu dem yoonam moo tax kenn ci ñu xamatul bopp il faut ñu jàppale jigéen ñi teete leen wutal leen ay financement ba nu mën a liggéey Pikine ba Sénégal nekk bërëb bu mbir yi dooree su fekkee gis nañu koom-koom bu lalu ci bépp gox goo xam ni mi ngi ci dëkk bi dib ndàng fas yéene jox ak yokk jigéen wàllub koom-koom koo xam ni yitteel na leen seen wàllub soqaliku. ñi nga xam ne ba tey duñu xaar politiciens yi nemmeeku nañ ci artisan yu Kaolack yi ndax kat ñoom ñay liggéey ca weñ ñoo xamle rek ne ci seen doole la ñuy sukkandiku ngir jëm kanam. looloo waral ñoo ñu di liggéey ca weñ yi balaa ñoo def dara ñu jàngi ndaxkat liggéey bi dëgg la mais jaay bi moo jafe ki leen dimbali ci jàng moomule di projet de promotion pour l'entrepreneuriat rural consultant bi moo di Pape mu Diop Ahmed si di responsable projet ba indi nañ ñu ci ay leeral ngir gindi ñu. jafe-jafe yi nag moom yi plaire di jàppal bokk na ci problème financement financement moom nekk na la nga xam ne moom mooy mbir mi ci jiitu. ndax euh, bu fekkee ne da ngaa bëgg a jënd équipement. da bëgga bëgg defaraat sa atelier wut sa matériel de sécurité. yooyu yëpp il faut nga am financement bu ci war waaye nag am na financement boo xam ne boo ko amul doo mën a am équipement ba ca war doo mën a am matière d'œuvre bi mooy weñ gi xam ne moom lay jënd ci liggéey te weñ googu nekk na loo xam ne lu lu cher la te weñ googu lii gi ñuy gis mooy dañuy ñoom dañu jël weñ boo xam ne bu ñu utiliser la ba pare récupération di dafa am qualité doo ko am mbay mi moom mënta dem mbay mi mënta dem te amul ñuy tëgg matériel bi matériel bi mooy usine mooy semoir ci moir ak mooy sareer euh, euh, yeeg yu mel noonu ak nag bu ñu liggéeyee ba pare li ñu koy soppee ñu mel na presse à huile wala nga xam ni moom la ñuy defee dégg machines yi defee dégg wala machines yi koy xolli hmm, décortiqueuse wala yi koy def farine yooyu yëpp dafa am solo lool lool lool lool lool ci milieu rural bi buñ ci boolee nii am na yeneen besoin nag ñi nga xam ni yëfu kër la muy bunt ak fenêtre ak yu mel noonu ak lépp lu nga xam ni moo jëm ci table banc ak yu mel noonu moo tax métal dafa am solo lool solo bi mooy ñu tëggal leen ko waaye it bu yàqoo ñu mën leen ko jagal. yéen xibaar ci wàllu koom ba talaata bii di ñëw bu soobee yàlla. jërëjëf soxna Mantouré Niang ci kanam tuuti incha allah seen yéene kaay ak El Hadj Ahmed Aïdara fi léegi ñuy teewlu waxtaan wu yaatu dox diggante Seydi Gassama moo jiite bànqaasu Amnesty fii ci Sénégal ak Jo Maxoun. Seydi Gassama ñu ngi lay nuyu. nuyu man tamit. ay directeur Amnesty International Sénégal ngeen doon amal atelier yoo xam ne da ngeen di xoolaat loi bi taxawal observatoire ngir mu xool nit ñu téye parfois lan la ñu mën a séntu ci ndaje bi. waaw ndaje bi ndaje ñaar fan la boo xam ne commission africaine bi nga xam ne euh, réew Afrique ñoo ko ci Afrique te siège am nag euh, Banjul bi moo koy organisé ànd ci ak ñun Amnesty Sénégal ak Haut euh, Commissariat des droits de l'homme bu Nations Unies maanaam kuréel bi nga xam ne moo fi toogal Nations Unies di seetu tamit ci wàllu ak ak yelleefu doomu aadama liñ ci mooy waxtaan ci mbirum observateur des lieux de privation de liberté di kuréel bu bees bi nga xam ne moom la Sénégal bu ko taxaw pour muy saytu kaso yi ak fépp fi nga xam ne yoon moo fa denc nit maanaam mun na doon kaso bokk na ci tamit ay commissariat de police ñi nga xam ne yénn saa yi dañ jàpp nit dañ ko fa ñaari fan wala lu ëpp en attendant euh, euh, yenn saa yi dinañ jàpp ko yenn saa yi mbokkam seen bopp ñoo koy def yee ko yóbbu ko fa ñu téye ko fa mu bugg a génne ñu téye ko fa rek bokk na ci tamit lépp euh, lépp li nga xam ne Euh, mun a nekk lu mel ni gaal gaal boo xam ne armée Sénégal moo ko moom mu nekk nekkatul Sénégal waaye mu ngi peut-être ci li ñuy wax les eaux internationales maanaam géej bi nga xam ne kenn moomu ko àdduna bi ko bokk wala boog mu nekk Guinée-Bissau wala mu nekk Gambie et cetera. gaal boobu su dee Sénégal moo ko moom drapeau Sénégal nekk ci gaal boobu te militaire Sénégal yore ko su fa amee nit ko xam ne koy jàpp rek denc ko ci biir gaal boobu observateur am na droit dem ci gaal boobu seet nit kooku naka la ñu ko fa téye. am na droit su demee. saytu benn benn bërëb gis fa loo xam ne dafa niroo torture am na droit sañ-sañ saisir procureur de la république pour mun a ubbi l'enquête leeral mbir moomu waaw loolu yoon may na ko yoon may na ko ko tamit fu mu bëgg a dem rek mu dem fa mais fan la mën a jëlee moyens pour dem ak yëpp loi bi dafa ne observateur dafa war a at mu nekk defar budget budget bu su ko defaree daf ko war a jox nguur gi maanaam ministre bi nga moom moo yor koom-koomu réew mi mu yóbbu ko assemblée ñu seet ci li mu ci xaalis lan lañ ko mën a jox su ko état loolu ba pare dafa war a seet bailleurs internationaux yi ñi nga xam ne lii dafa leen yitteel liggéeyam dafa leen yitteel lu mel ni Nations Unies lu mel ni ay PNUD lu mel ni ay Union européenne ñooñu yëpp liggéey observateur daf leen soxlaal bu baax a baax observateur bés bu taxawee lépp lu mu la laaj ci xaalis ci ci ci koppar pour mën a liggéey rek yaakaar nañu ni que nañ ko ko mën a jox pour mun a def liggéey bu mu war a def kon euh, li ñu yitteel mooy indépendance am euh, maanaam ñu jël budget yóbbu ko président wala ñu jox ko yóbbu ko primature wala ñu yóbbu ko ministère de la justice boobaa problème dañuy ñëw ndax am na yeneen kuréel yi nga xam ne ñu ngi fi lu mel ni comité comité sénégalais des droits de l'homme wala comité national de dialogue social seen budget soit mu ngi président wala mu ngi ministère du travail kuréel la yoo xam ne kuréel yoo xam ne dëkk bi dafa amoon yaakaar bu réew ci ñoom waaye parce que seen budget dañ ko dénkaane feneen ñi nga xam ne ñoom ñoo xaalis pour liggéey di leen ko jox nañ fi nekk daw ay weer ay weer ay pour jot bi nga xam ne ñoom ñoo ko moom nar ci liggéey loolu la ñu bëggul waaw dañu bëgg nag observateur bi budget na am indépendance waaw déjà loi bi woote nañ ko mais lu tax ba léegi nommé guñu observateur bi yaakaar nañu ni ko observateur nañ ko nommé du yàgg ndax loi bi xam nga mars euh, février 2009 la ko assemblée voté sénat bi voté ko mars toog na ñaari at presque de juin 2010 doo ko am décret d' application décret bi nag ñëw na léegi adopté nañu ko noonu observateur bi moo des moo tax tey ñu daje pour seet naka la ñun ñëpp mën a ànd fa ba yaakaar bi nga xam ne moom Sénégal yi am ci moom pour mu aar seen ak seen yëleef ñu mën ko joué ni mu waree waaye bii ñëwee tey am nañu tuuti déception ndax décret bi nga xam ne moom mooy décret d' application loi boobu daanaka dafa wàññee bu baax a baax doole observateur daf ko wàññi bu baax a baax a baax te bépp transparence bi nga xam ne moom moo waroon nekk ci tànn observateur transparence boobu daanaka décret bi daf ko wàññi moo tax tey loolu ñu ko ñu ngi koy ñaxtu la ñu defee recommandation jubal ko autorité yi pour wax leen que décret bi dafa dëppul ak loi bi que décret bi euh, dafa wàññi doole loi bi dañ ko war a seetaat modifier ko pour que yaakaar bi nga xam ne moom la ñu am ak loi bi yaakaar boobu mun a bañ a tas ndax ci intérêt Sénégal la nag ñu am observateur boo xam ne dafay dëgër waaw ndax su amul observateur bi suñu ko nommé te amul sañ-sañ yi nga xam ne loi bi daf ko ko jox suñ ko joxul ay ñaawtef yi nga xam ne moom mooy nekk ci commi moom mooy xew ci commissariat yi ay nit ñi dafay dee ñu fay ñu fay torture ay nit dina continuer ku fi nekk tey di diriger waroo di ci say décision kay xalaat sa bopp yow rek da nga war a di xalaat toujours askan wi ndaxte yaa ngi ci pouvoir observateur bi doo ko soxla waaye ëllëg <laughs> soo nekk ci opposition su askan bi yóbbu ci opposition da nga soxla observateur bi ndax di nga def yoo xam ne yow na teg loxo sa kaw ndax képp ko wut nguur di nga def yenn saa yi nga jërgati yoon di nga def loo xam ne n'est-ce pas yoon tegloo sa kaw di nga soxla observateur pour mu aar. Sénégal sama yaay directeur Amnesty International bu Sénégal mu ngi la gërëm. maa ngi la gërëm. RFM li ci yéen kaay yi. Master Office bi ngeen taamu ci seen mobilier ak matériel de bureau informatique.